cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di net bi TV bu baax jaajëfal leen di Seydi Gassama daal dinay génn nag yëkkati ay kàddu ginnaaw discours ne rek njiital réew mi Macky Sall doon na ko amal niki démb ci alxames ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février mu nekkoon interview boo xamante ne rek doon na ko sekk ak suñu nattangooy média sénégalais moom président de la république di Macky ki nga xamante ne moom mooy Seydi Gassama nag lam ko daal di xamle moo di nekk comportement bi nga xamante moom la daal di am rek jamono ji moo tax candidat yi nga xamante ne rek conseil constitutionnel ah, daal dinañ leen di retenir ñuy laaj seen euh, sañ-sañ ñeel nag li nga xamante ne rek moom mooy ñu topp processus euh, fexe rek ba organiser élection yi waaye nag mu nekk ab date boo xamante ne rek ñu ngi koy laaj ngir fixer yooyu lay jongante présidentielle di kaddu kii di Seydi Gassama ba tey moom nag nee na ma ngay fàttali chef de l'état di Macky Sall que ne nag interview bi nga xamante ne rek doon na ko def niki démb rek euh, ginnaaw question yi nga xamante ne moom moo ñeel date bi ñu nam ma amal élection présidentielle ki nga xamante ne moom mooy Seydi Gassama la mu daal di xamle moo di nag kii di président Macky ci jëmmi boppam nag xam ne moom ci jëmmi boppam nag composant yi ñeel boobule dialogue ak conseil constitutionnel ñoom ñoo ko daal moom ndax nag la tukkee ca boobule mbir bu nekk rek moo di naka la ñuy def ba mun a amal lii di processus électoral bu am ab njeexital waaye nag li leer ba leer daal moo di ne nag vide moom du ci am nee mu nekk réew moo xamante ne du am président kon boobule dialogue euh, mënta ñàkk kon nag nañu xaar euh, dialogue bi ba noppi xaar lan lay dialogue bi di daal di jur euh, ba tey rek mu daal ci yokku nee na nag date wala sax élection yi kenn lañu koy fixé mbir mu nu mel nag xamaguñu ko tànk defuñu dialogue nag tànk xamuñu argument ñeneen ñi ak ñeneen ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ci daal di des di kaddu kii di Seydi Gassama ba tey rek ki nga xamante ne rek moom moo fi nekkoon ancien parlementaire nekk leader ci ci mouvement politique bi ñu duppee Azir moom Thierno Bocoum la mu dal di gis rek mooy kii di président Macky Sall dafay créer problème ci kaw problème ba da yàggee sax moom ci jëmi boppam nag moom mooy nekk solution am ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante moom mooy Thierno Bocoum moo dina nag kii di Macky Sall moom ci jëmi boppam rek dafay toog di xaar waaye nag di pousse ay vacances yoo xamante ne rek pouvoir bi nag yitteelu ko benn yoon ndax jot na nag moom ci jëmi boppam mu daal di désigner li nga xamante rek moom mooy datu élection yi maanaam daal mu tànn dat bu ñu nam amal élection présidentielle ndax yàgg na ba léegi ni rek joxewul benn délai boo xamante ne rek délai bu nit xam la bu ñu sukkandikoo ci article 31 bu constitution ñu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk autorité compétent moom ci boppam nag naam sax ci la bokk waaye mbir mi amul mbiru parti amul mbiru collègue amul mbiru candidat jot na rek ñu daal di génnee dale boo xamante ne bu nit xam la ba noppi tënku ci décision bi nga xamante ne moom la conseil constitutionnel daal di bëgg mooy ñu amal élection yi ci nu mu gën a gaawee mbir mu nu mel kii di Thierno Bocoum nag mi ngi ko daal di yëkkati rek fësal ko ci page Facebook am jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaa yeneen info